réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. jaa ngeen jëf mbokk internet yéen ñi topp ci seen seen bii di la Patriote TV ñu ngi leen di bëgg baax di leen si aar di leen wax ni ngeen wéy di abonné te ngeen di bi waaye bu leen fàtte tamit di like vidéo yi. dal leen ak jàmm ki nga xamante ni mooy président Macky Sall président bu Sénégal demoon fii nga xamante ni mooy États-Unis foofu noonu sa New York waaye fa nekk. ñoom ñooñu daal ak comme ni ngeen ko gisee si oto yi daal ab oto daal la ñuy yor boo xamante ni daal maanaam écran moo fa nekk boo xamante ni day tak ñuy wane image yoo xamante ni image yu doy waar la pour yóbbaane fi nga xamante ni moo di États-Unis pour maanaam waa États-Unis daal xam ne Macky Sall bi daal li mu yore Sénégal daal baaxul benn yoon. image yooyu nag ñu gis Macky Sall mel ni ku yor ab benn pistolet mel ni kuy tiire si ñi nga ni ñoo di ñoo di kaw askanu Sénégal. mu nekk nag image yoo xamante ni yu doy waar la kon nag moom Macky Sall mi nga xamante ni daal moo teewoon foofu noonu tey euh, daal neexul benn yoon ndax euh, suñu mbokk yi nga xamante ni ñoo féete daal leewat na li ñu ngi woowee le patriote ñoom ko daal neexul benn yoon rawatina nag sax moom mi nga xamante ni mooy njiitu réew bu Sénégal kon daal mu mel ni kon moom daal euh, ñi nga xamante ni daal moom lay doxalee fii si réewam neexul benn yoon ñi nga xamante ni ñoo nekk Euh, foofu sa bitim réew rawat na sax ñu nekk ñu nekk fii Sénégal xëy na nag ñu nekk Sénégal fii dañoo ñimuta wax ndax nag ku si wax mën nañ ne ñu jàpp la si kaso gi boo génnee yëngu ñu jàpp la moo tax ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew daal mel na ni yëngu-yëngal yi ñuy yëngal fan ñu nekk Sénégal sax mënuñu ko am ñu nekk Sénégal bu ñu wutee li nga xamante ni mooy autorisation pour ñu amal manifester pacifique sax duñ leen ko nangul te ñu nekk bitim réew gis nañ bu si mujj rek fi nga xamante ni moo di Espagne manifestation bi fa amoon bu rëy rëy rëy la te gis nañ police escorté ko dara amul dara ba Guy Marius Sagna mi nga xamante ni moo fa nekkoon sax dafa mujjoon sonn parce que Sénégalais yi nga xamante ni ñoo ko waroon bëgg photo ak moom bëgg vidéo moom ba président boo mujjoon di jël rawale ko te ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk biir Sénégal mënuñu am li nga xamante ni mooy manifestation pacifique mu nekk nag mbir moo xamante ni mu yéeme la